góor wax ci jigéen wax ci kilifa wax ci kuñ yilif wax ci te fekk liñ ci wax amul benn njariñ football bi bokk yi li tax ma ne dañ ko waxtaanee ba ci jëkk mooy Sëriñ Tuubaa araam araamal na ko fi fi Tuubaa benn ñaareel bi football bi saa buñ cay jëm dinañ jël ci alali Sénégal yépp jël ci alal murid yi nga xam ne dañ koy tere ci seen dëkk karahan aw bu leen neexee bu leen naqare def ko ci football bi ren bi ñuy dem ñaari milliards lañuy wax ne yóbbaale nañ ko ci xaalis kenn ku nekk ña demoon ñaar fukk ak ñett kenn ku nekk néeg ba ngay fanaan di sa yenn daañu la ca fayal juróom-benn fukki junni bis bu set ki ñu wax ne moo leen doon tàggat ñaari at yi fi def jox nañ ko juróomi téeméeri million te moo na ñoom day suñ bi bokk yi euh, saa su jotee dañ ciy wane ñàkk jom gu sëkk ñàkk jom gu mat sëkk ña fay daje ñépp ñoo ciy gën le lu ñu nekk ñoo ciy gën fu ñu dëkk ñoo ciy gën lu ñuy lekk ñoom lañ ci gën a déglu gën a bari ba noppi ñu bàyyi ci réew mi ay ñaankat yoo xam ne sa am na si ñoo xam ne bu ñu tàllee ne ya allah ya rab mën naa nangu waaye déedéet dañ ne loolu du pas-pas bu wér yaa rab du pas-pas bu wér waaye xaalis bi ñuy génneel ñoo ñay di fa dem wàllu njabarkat da ciy am wàll ak jabar nangami million la ñuy jël jox ko jabar yi suñ demee nag doy loolu leen jabar bay wax boole ko gisaanekat yi te moo ne équipe bi ak li ëpp ci ñi nga xam ne ñoo ko yor ay jullit lañ mën nañoo doon sax ay murit ñee fi bal am na moo ne doon ay murit waaye nañ daal ñaan mu nangu léegi moom nekkatut ci loxo yi ñu gëm yàlla nekkatut ci loxo yi jaamakatu yàlla yi nekkatut ci yaa rabb yaa rabb yu dul jeex waaye faw ñu dem ci koo xam ne bala ñoo dem ba xam dañuy dana baax baaxam déet dañuy dem ca moom nekk nu muy demee mu xool xool ne dana baax de kooku it ba mu ko dalee wax ak léegi mu ngi ko tàmbalee woon wax ci benn nawet boo xam ne fi la fekkoon alaji baara mu ne ndox du am alaji baaro ne ah man ndox mi mi ma gis man jaaxal na ma su fekkee du boobu ba tey bala ñoo dem fenn wala ñu def dara dañuy dem ne ko waaw léegi daal dañoo bëgg nga wax ji ba xam dana baaxam ne mu ne day baax ndax ñoo waxatut ak ñoom waaye xaalis bi mu yor mooy wax ak ñoom léegi xaalis bi ñu ko jox mooy wax xaalis day wax xaalis day wax wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi xaalis bi naan ay waj bu leen ma jox bu leen ma dugal ci loxoy ab jabarkat dem leen seeti jàngalekatu alquran dem leen seeti jaamu katub yàlla dem leen seeti jàngalekatu xasidi ngeen jox ma waaye bokk yi euh, saa bu tëralee li muy tëral ne dana baax ñu dem mu gën a bon mu dem ñu gën a bon mu dem mu gën a bon mu dem ñu gën a bon am na ci sax ñoo xam ne nee nañu woon man dégg naa ko saw nopp mu ne su fekkee demuñu jël ndam la moom xàcc na ci nangam ak nangam jëm nekkoon ndax liñ yor kenn yoru ko waaye nag su fekkee dañuy dem ne yàlla nañ ko bàyyi fii Sénégal mu xaar ñu fi foofu ñu dem moom yàlla nekku fu moom ay yabara fa nekk loolu itam jàkk ji am na lu mu ci war a wax gannaaw sëriñ bi nee woon déet déet lay doon ba faw am na ajjuma joo xam ne 2002 euh, ci la France gagné woon Sénégal sëriñ Saliou Mbacké radiyallahu anhu Euh, dégg coow li ci yor-yor bi ne ana xew ba dëkk bi xumbe nii ñu ne ko gone yi wane seen mbégte day la mu ne mbégte ma mbégteem lu mu mu ne xanaa sant ñu ne ko xanaa sant sëñ bi rek mu ne càll at mooma bis boobee di ajjuma jumaay Tuubaa ji wéet na lool ak ñi ci daan julli si ndax dëkk boo dem ndaw ya ñoo cay gën a bari te ndaw ya bisub keroog dañoo teeloon a yeewu lool dagg seeni nelaw benn ba jongante ba jeexee am nañ ndam lañ bëggoon talatuñ talatuñ julli ci ajjuma waaye ñu wër mbedd yi di fecc ak a feet waaye am na yor boo xam ne it yàlla moo yabal mbokkum jullit turki kero kenn añut waaye yàlla moo yabal suñu mbokkum jullit ne demal wanal ma ñee aw yoon du leen booleeku bu yéefar du ma leen booleeku ab nasara du ma leen booleeku bu jahud waaye seen bokkum jullit laa leen di booleel ñu boole ñoo waa turki waa turki ko si gis am sëgg am siggi lagg la moo xam ne mën naa ub làmb sawar lool kuñ ci wéng da bari ngoy dem di lekk yàpp xar di naan soow mu dagan lool ñu naan ataaya ak kafe ba noppi tudd yàlla fu ñu toll waaye ñun ñu jëli liñ ñoo xam ne sénégalais boo xam ne munta wax benn ci yi sénégalais yi wax tubaab rek ñu dem jëli war ab tubaab ne tàggatal ma ñii te tubaab ba moo leen gañe woon moom lañ gañe woon daaw moom lañ toroxaloon boobee ñoo xam ne xamuñu kuñ ci laaj ne boo xëyee loo jëkk a def danoon dès les cinq heures du matin su ma yewoo ba sëlm ba jël sama kafe danaa daw danaa daw su ma ñëwee ndekki dem entraîné ji tuddu fi julli te ab julli lay doon tudd fi julli fenn yoon ak jàpp su añ jotee tusbaar jot ñu ne ko diggante après midi ak après midi looy def mu ne su ma jëlee sama déjeuner ba pare après déjeuner damay dem jël sama kolaat xawma kolaat la xawma li ñu teg ci li bu ñu lekkee ba noppi dem geste tudd fenn julli tusbaar bu quatre heures jotee ba mu geste ba noppi geste mooy dallu nelaw tuuti wala tëdd tuuti bu cinq heures jotee ba nga xam ne jul takkusaan jot na bu ne tëdd si ay nelaw dem sëlmu solaat ay yéreem dem entraîné jiwaat tudd fenn jul tisbaar takkusaan bala fa jóge jul timis weesu bu ñëwee bu defee li muy def ba noppi balaa liir journaux yi bay xool ay e-mail am tëddaat jot ñu fay làmp yi mu telewaat ba bët set kañ lay julli waaye ba ñu yàlla naree dimbale dafa ñoo boole suñu bokk jullit turki la ñu yónnee la ñu yónneel dañoo jaar si kaw ay yéefar di jàll rek mu nooy lool ndax am na si koo xam ne saa bu ma saan def dara day génne farab Sëñ Tuubaa di ko tiitaroo waaye Sëñ jéppi ko lool ndax maam Cheikh Anta mas na am aw fasu kurs ñu ne ko fasu naar boo xam ne ab yahud la moo dëkk sa fas mu ne lool sëriñ bi mag bi du ko seetaan sama waa ji du ko seetaan ñu ne ko ma ngay e, tëbal fasam wa de maanaam di ko dawal xel yu ndaw muy tëb ay ñag di tëb ay dégg yu ndaw di tëb ay garab yu ndaw ndax bëgg mu sawar mu ne bàyyi naa bàyyi naa sama fas wi ak sëriñ bi ci fasu naar bi ca ngoon jot bañ jullee tiis ba noppi ñu yóbbu woon fas wa dellu si kenn ku nekk sëgg mu ne lu xew ñu ne ko ay li yéwén mu ne déedéet xamoon naa ne sama waaja du ma se du seetaan ay caaxaan te moo ne dawal course lu dagan la waaye lan ko jàppe mooy bu ñuy course duñ julli tisbaar duñ julli takkusaan mën nañu bay julli timis wala mën nañ ko jullee guddee julli lool te Sëriñ Tuubaa moo xam ne lépp loo xam ne dañ ma koy fàggul buñ ca faatee waxtu buñ ko boolee ci li ma moom moomuma ko kon su fekkee dañoo bëgg a tànqal nit ñi ci football bi at mu jot ñu jël ci xaalisu murit yeeg tijaan yeeg xaadir yeeg laayeen yeeg ñépp def ca te bëgguñ ko te duñu leen ci neexal te ku ci yàq ku ci defar lañ ci yamale nee nañ mënuñu fee jële ñi yàq ku fi munta jële ñi yàq nag bu ñuy lim ñi yàq mënoo caa génnaale su ko defee kon jullit yi war nañ cee bàyyi xel nañ cee bàyyi xel nag man raa minkum munkar munkaran fal yughayyirhu bi yadi gannaaw état bi am doole ne mënu mënuñu fay jëlee ñi yàq fa in lam yastati' fa bi lisaanu ñu reetaat ko fa in lam yastati' fa bi xalbu mooy su football amatee ci télé bi benn murit bañ ko seetaan bañ a dagg sa liggéey di ko seetaani ca kersa rek nga ciy jële bañ a taal sa courant di fay courant bu bari di bañ a ubbi sa kër sàcc di dugg ndax am na dëkk yoo xam ne benn tele moo fi am ñëpp sa salloo fa bu ñuy dem sàcc la fa nekkoon yóbbaale ko léegi-léegi ñu bëgg génn ci mbedd mi kuñ tasali moo jaay caaf sax ñu siif caaf la sànni ko duñ ko duñ ko yëyee waaye dañ koy sànni su dee jaay pain au lait ñu jël ko dëggaate ko ndax mbégte loolu jumaa am na lu mu ci wax waaye ku ne ci këram te am courant bu muy taal sañ naa coupé courant bi ñu bañ ko fa seetaane mu tëj kër ga denc caabeem kenn bañ a génn seetaane ko fenn ndax ñi leen di topp saa su nekk yëkkati ay wagg rek la ñuy oo oo rek lañu koy dégg ndax ndax ñàkk jomm sénégalais boo xam ne doo lekk cere doo lekk laaxu doo lekk ñalan doo lekk laaxu caaxaan doo naan ci ndaa kooku fi mu jël doole moo tax saa bu ñu taseeg africain yi nga xam ne bu ñu naan ay wattu la ñuy yor di lekk ay di lekk pat iñaam ak ak mboq lañuy ñuy boole ak sëb def ci kànja ak diwug tiir moo tax lu ñuy xëccoo ci wax moom ñun mën nañoo gañe Sénégal mën naa gañe lépp loo xam ne dañuy wax rek wala dañ koy bind mu bind mu neex a jàng bay boo nga woo Sénégal yaay gañe bay boo bay boo nga faral ko waaye lépp loo xam ne dañ koy xëccoo ci jom ak ñaq te kattan di ko def bay boo nga bàyyi Sénégal day ñàkk